nee na cant gi mi ngi koy tàmbalee si mbooleem ñii mu bokkal Cheikh Ibra ñuy ay nawleem te defuñu ko nawle ab sëriñ lañ ko def muy buntu kër yëpp dale kër maam Saliou Fall ba si kër sëriñ Gunda Fall nee na dañ koo jàpp-jàpp goo xamante ni gii liggéey bi fépp fu mu àgg ba bi di ko sant ñoom ñoo taxaw si gannaawam ànd ak moom lépp lu mu yëkkati ñu ànd saak moom ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko nii waxoon na ni cant gi mi ngi si mi ngi siy dolli ñii nga xam ne Cheikh dafa gërëmoon seen maam mbaa njabootug Cheikh Rafal gi gërëm seeni i maam wala seeni i wajur muy cheikh yi nga xam ne danoo nekk si kër Cheikh Rafal yaakaar naa mbaar yi nga xam ne moom la sëriñ bi seen mbaar yi sëriñ bi seen mbaar yi yëpp mboolem koo xam ne kii Cheikh dafa gërëm sa maam sa mbaar a ngi fii sa njaboot xëy di ànd ak sëriñ bi sëriñ ji li ne seen kanam ñu ànd ci liggéey bii taalibe yi nga xam ne nag lépp ñoo ma te doo jóg si di ko wax sëriñ mun Muntaxa du jóg si di ko wax noonu la ko sëriñ am di waxee wax ne mi ngi sant taalibe yi képp koo xam ne sa yaakaar génnut Cheikh Ibrahima Fall mi ngi lay sant cant gu amul tàmbali waaye amatum yem ndax ndigal lu mu mas a jot ndigal loolee ba mu ko yëkkatee ñëpp a bàyyi lépp lu nu jàppoon kenn ku ne def si yitte ju mat sëkk ba sëriñ bi am si ndam loo xam ne moo ko gënal loolee moo taxoon sëriñ bi wax ma ne ma cant gi mënu moo mënuma koo ñàkk a di ko seereel Cheikh Modou Basir waaye di ko seereel Cheikh Modou Muntaxa xam ni ñëpp ànd na noog moom di teewlu ndigalu Cheikh Modou Muntaxa ndax xam na ni baat bi leen tënk mooy baatum ndigal moo nu fi indi te bàyyi nu fi soxlu lu ndigal mooy sëñ bi di digle rek noonu nga ko waxee mbañ mi moom fasu ko yéenee lekk mukk moom njabootu boppam gii di njabootu maam Cheikh Fall loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon max ko sëriñ Fallu mii sant ma ma ma waxaat ko si kanam mbooloo mi jottali ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ baa ngi nuyoo sëñ Fallilu Faal jëwriñ sëñ Modou Aminta nee na asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa rek nee mi ngi jottali ay kàddu fa ko daan jottalee rek. mooy di jégalu jataay bi ñu toog. mooy di jégalu jataay bii ñu toog. sëriñ Tuubaa toog fii ke sëriñ Tuubaa toog fi. ñu yëkkati suñu kàddu fi moom. ñu yëkkati suñu kàddu fi moom. loolu day mel ni. loolu day mel ni. bu dul ndigal day bu dul ndigal ak mooy lay doon ak mooy lay doon waaye buy ndigal nag waaye buy ndigal nag ak topp lay doon ak topp lay doon ndax ab taalibe moom mu toogee fi kanam kilifaam ndax ab taalibe bu toogee fi kanam kilifaam dafa war a mel ni am néew daa war a mel ni ab néew ci loxoy way sang ya ci loxoy way sang ya wala wala loxoy way ndund ya wala loxoy way ndund ya nga xam ne du am menn bañ nga xam ni du am menn bañ wala génn bëgg wala génn bëgg ci luñ koy defal ci luñ koy defal baa fuñ koy jëmee baa fuñ koy jëmee kon nag bu ñu yëkkatee kàddu yi rek. kon ne bu yëkkatee kàddu fii. ndigal ndigal lee. baatum ndigal lee. waaye du lu war waaye du lu war. waaye du lu war de. waaye ndigal moom. waaye ndigal moom. war war na ci kaw lépp. war na ci kaw lépp moom. kon nag ñoo ngi nuyu sëñ Mouhamadou Bassirou Mbacké. kon ne ñu ngi nuyu Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké. ibnu sëriñ Abdou Khadir Mbacké. ibnu sëriñ Abdou Khadir Mbacké. tam nekk fii. tam nekk fii. nekkal fi Serigne Touba. nekkal fi Serigne Touba. yor kàddu Serigne Touba. yor kàddu Serigne Touba. ci yoonu murid yëpp. ci yoonu murid yëpp. ci ndigalul ay magam. ci ndigalul ay magam. ay waajuram ay waajuram nga xam ne moom ku séen rek nga xam ne ku ko séen sa xel dina dal ci ni sa xel dina dal ci ni ndawal sëriñ tubaa nga nee lu wér ndawul sëriñ tubaa ngi nee lu wér te li indi

ko gën a ñaanal nag. mu gën fee yàgg lool mu gën fee yàgg lool. te gën a wér te gën a wér. ba sémb yim sémbal maamam yëpp ba sémb yim sémbal maamam yëpp. mu àggaleel ko boppam mu àggaleel ko boppam. ba am ci ngërëmal Serigne Touba. ba am ci ngërëmul Serigne Touba. ànd ko njabootu Serigne Touba gépp. ànd koog njabootu Serigne Touba gépp. ànd koog ñun murit yëpp ànd koog yëpp xolam sedd na ci moom bu baax nee xolam sedd na ci moom bu baax a baax ci njariñ li mu koy yót ci njariñ li mu koy yót ndax ndigal moom ndax ndigal moom njariñ njariñ rek la njariñ rek la waaye lor lor lor nekkul ci waaye lor nekkul ci biir ndigal ndax loolu yi nga wax léegi ni ndax loolu yi nga wax léegi ni sëñ Abdoulahat Mbàkke mu baax ma sëñ Abdoulahat Mbàkke mu baax ma waxoon na ko sëñ Moodu Aminta waxoon na ko sëñ Moodu Aminta ne ko suñu yaari kër yi dañoo am bañ ne ko suñu yaari kër yi dañoo am bañ kër sëñ Tuubaa toog kër sëñ Tuubaa gii ma toog ku toog ma toog ku toog fi ma toog. war a digle war a tere. war a digle war a tere. digle woo tere woo. digle woo tere woo. koo fi def ku ko fi def lekk nga mbañum kër sëñ Touba lekk te jëfewu leen ko ne fu ñu ko fa defee lekk ngeen mbañum kër Cheikh Ibra Fall lekk ngeen mbañum kër Cheikh Ibra Fall kon ndokk bi ñu dimbalee ba nga kon ndokk ba nga xam ni mbañ moom lekkuñu ko mbañ mi moom ñun lekkuñu ko ca fas ñu ko yéenee lekk mukk ndigal rek mooy sunu dund mooy sunu koom mooy sunu koom mooy sunu alal sunu alal. mooy sunu lépp mooy sunu lépp. moom la ñuy daraje woo. moom la ñuy daraje woo. suñ ko amee rek. suñ ko amee. suñ xol day sedd guyu. suñ xol day sedd guyu. waaye buñ ko amul nag. waaye buñ ko amul nag. waxtu wu nekk ci tiitaange la nekk. waxtu wu nekk ci tiitaange la nekk. dafa danoo nekk ci lu warul. waaye bu nekk ci ndigal waaye bu nekkee ci ndigal. suñ xel day dal lool. suñ xel day dal lool. kon sëñ bi nee na. ngi sant sëñ Muntaxa Mbàkke a Mbàkke bu baax a baax. di ko ñaanal moog njabootu li Serigne Touba di liggéeyloo. mu man loo leen ko nag. mu ko nag. ko na mu am ci ay ndam yu bare. bare bare. bi nag. sëñ bi nag. fi nga fii nga ñëw muy daare Serigne Touba ji muy daare Serigne Touba ji xam ni nga ko waxee rek xam ni ni ko waxee ci ndigalu Serigne Cheikh jëmbal la ko njëkk a ko njëkk a ubbee waaye ñu joxoon nag léegi sëñ am sëñ Modou Mbenda waaye léegi nag mu ne ci loxol sëñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbenda mu yokk lool mu yokk liggéey bi lool nag moom taaral ko lool ko lool it def ci ay ndimbal yu bare ay ndimbalit yu bare bari waaye loolu day waaye loolu day sant na ñu koy def loo nee sant na ñi koy def loo waaye ñi koy def itam waaye ñi koy defalit sant nañ ko sant nañ sëñ Amdi Fall ñu fi teew ñi fi teew ñëpp. ñoo gën a néew ñi war a ñëw ci liggéey bi. nee ñoo gën a néew ñi war a ñëw ci liggéey bi. ndax moom boo seetlee ay milliards fi nekkoon. ndax booy xool da nga naan ay milliards fi nekkoon. booy xool tey da nga mel junni junni day mel ni tey junni rek fi nekk. te xam naa mbett mi rek. te xam naa mbett mi rek la. yaakaar naa suñ ko yëgoon démb rek. yaakaar naa buñ ko yëgoon démb rek day. di nga fi fekk mbooloo moo xam ne. di nga fi fekk mbooloo moo xam ne. toogloo leen toogloo leen du yomb. nee na toogloo leen du yomb. waaye dégloo leen du yomb. waaye dégloo leen du yomb. waaye ñun lu ci kenn dégg rek. waaye ñun day ñun Baye Fall lu kenn dégg ci ñun. day me ni ñëpp dégg nañ ko. day mel ni kër Cheikh Ibra Fall gépp dégg nañ ko. kon nag kër ni ko sëriñ daam waxe kër maam Saliou Fall. kër maam Saliou Fall. ba ci kër maam Saliou Fall mii. ba ci kër maam Saliou Fall mii. ak njaboot gi ak murid yëpp. ak njaboot gi ak murid yëpp. ak seexi murid yëpp. ak mboolem seexi kër Seex Ibra Fall gépp. dégg nañ ndigal li dégg nañ ndigal li. fas nañ ko yéene jëfe itam. waaye noonu leen seeral nag. waaye nag mi ngi lay seeral Seex Basiru ni la. ndax ndax ndax dañuy wax seere kat. ndax dañuy wax ne seere kat. la ca gën mooy. la ca gën mooy. bu dee doomu aadama. bu dee doomu aadama. day doon ñaar baa ñett. nee du doon ñaar baa ñett. day doon ñaar baa ñett. day doon ñaar wala wala ñett ci seere ci seere de yàlla nag nee bu dee yàlla nag moom kenn doy na ci moom kenn borom ndax moom xam na lépp ndax moom xam na lépp waaye ñu ngi lay seeral waaye ñu ngi lay seereel ni la murit yi nga xam ni murit yi nga xam ni moom ñoom daan di xëy ci liggéey ñoom ñoom ñoo daan ànd di bi ak fooy mën a bàyyi koo ak fu waay mën di bàyyi koo di góor di góor di jigéen di jigéen di mag di ndaw di mag di ndaw liggéey bi ni ñu ko jàppee liggéey bi day mbàkke ni ñu ko jàkke woon jaaxal na lool nee na na leen lool ñoom ñu nekkoon ci kanam ndax pastef bi ñu ko téye ndax pastef bi ñu ko téye woon ci boole ak nungu gin ci boole ak yaakaar gin ci am ci am ak bëgg gin ci am ak bëgg gin ci am nga xam ne a amee sa mbokk nga xam ne fu waay mën a amee sa mbokk mbaa sa xarit mbaa sa xarit mbaa sa wëllëre mbaa sa ba ba nga di ko woo ba nga di ko woo di ko indi ci liggéey bi di ko indi ci liggéey bi mu jëf ci ngir bëgg te njëriñal liggéey bi la nga xam rek te njëriñal liggéey bi nga xam rek moo tax ñu leen ci woo kon nag ñu ngi lay seeral ni kon nag ñu ngi lay seeral ni murit i Ibra Fall yii murit Cheikh Ibra Fall yii ak wëlëreem yi ak wëlëreem yi ñëpp day ñëpp day bëgg nañ ndigal li lool bëgg nañ baatum ndigal bi lool jàpp min daari minan yaatan minna